jullit léegi sax ñun fii de l'Ouest amul jullit mm-hmm. bu weer bi feeñoon Zinder fële si Niger mm-hmm. tubaab bi télégramme la doon def yónnee ko gouverneur général Saint-Louis mm-hmm. ne ko waxal nit yi ñu wori sëriñ yi waxuma seen doom yi fi nekk sëriñ yu mag yi ñoo fi nekkoon ñoom ñëpp doon wori mm. xam nga fi xam ne El Hadj Malick moo fi nekk El Hadj Abdoulaye Niass Cheikh Amadou Bamba ñoom ñoo fi nekkoon tubaab bi envoyé un télégramme ne leen woor bi jot na woor leen ñu woor woor yi jot na woor leen ñu woor Sénégal mu commencé am ay deux fait deux korité de tabaski yàggul mm-hmm. tant colonial mosuñu am deux korité de tabaski léegi ma coow moy tubab bi mo gënon diri mo gënon gérer diine bi wala après indépendance kon lan moo fi yàq su diggante après indépendance 1960 sax ba fi mag ni nekkee la wax mais fi problème bu ñaari ñaari ñaari côté jafe tabaski mu fi am est-ce que responsabilité mo mo manqué kon mm-hmm. wa ma dama gis né dafa am lén li nga xam ne bu mag ni la wala waaye mujjul jëmm mujjul ko jëmmal muy xéxu am benn conseil islamique supérieur mm-hmm. li mag ni amono ñu itte bi demo nañ ba taxal ko sax da jéewal suri wut fi xana jéewal mom néewul ci asaman si jeewal néewul malakóot jeewal néewul konakiri jéewal ngi ni tout près ñu né la à 1895 fi la touba jamar lok nasaran bi mu ne ko do fanaan mu ne ko day fanaan do yend mu ne ndigal lima jot ci sama borom moy fanan defana ko ay espèce ci wër yori fetal na la doo fanaan nga ne danaa fanaan ci biir xur wi tañ jot ordre te du même porte qui moo la jël si ndax lekkleer mi la jël si booba dafa nekk gouverneur bu lugo bu la tubaab bi mënta joxar bi fetal na la jógal nga ne du ma jóg ab tubaab du la wax weer feeñ ab tubaab du la wax woril sëñ tubaab bu nangu woril ak woral du sañ ci 1886 89 88 bi muy sañ ci tubaab yi yónnee nañ ngir bañ sëñ tubaab du ko jaral génne mbakke bari it. وفاز بالأرار محمد طبيبنا الحكيم الكاس لا مير بنا الكريم ولا وزاب ذوي العلاي ما داج سرس خامل زباي هذا اليوم زوع جاي